liggéeyam en toute impartialité mais en toute justice également parce que wax dafa mais wax bal fetal la nga jàpp nit toog sa réseau sa YouTube wala sa chaîne bu mu mën a doon jàpp nit diw nangam diw nangam diw nangam te la nga cay wax amul ci benn firnde boo ci am mais on l'a fait benn imam et je ici loo xamee ni peut-être farataalu moo ko sax mais mu merloo ma ndax lan Birahim li mu wax ci lii Birahim nee na ci parce que on parlait de quoi de la direction des affaires religieuses bi nga xamee ni def nañ ko pale ma may relire benn commentaire wala contribution un enseignant mu ne man lii mooy samay question kooku toog ci YouTube ñu invité ko amul lu mu waxul Birahim Touré tout simplement pour lan ba ca chaîne ba koy jël le fait ñu bind Birahim Touré teg ci photo Birahim Touré mu may ko ay vues mais boobu yaa ngi tooñ doomu jàmbur koo xamee ni daa am ay doom am ay mbokk am ñu ko bëgg am ñoo xamee ni peut-être foo gisee ku la bëgg am na ku la fa bañ mais pour lan parce que am nga sa chaîne YouTube tu te permets de dire du n'importe quoi des gens mais premier ministre wax naa ko fi démb mais c'est un premier ministre looy wax ci moom mais na na nga ci am ay firnde yu leer yaa ko fekkee la mu wax moo ko fekkee njort la ci am dégg naa léegi ay def ay corrélation gis naa drapeau fii gis naa nangam nga ñëw rek ne ni nit ki nangam la jeune ne je ne défends personne mais je l'ai dit hier saagakat ak kuy wax loo xamee ni yow dara wóoru la ci ci kaw deru nit mënuma laa défendre parce que da nga koy subir peut-être doo am foo ko waxee am na ñoo xamee ni tey ñu ngi subir euh, lu nekk ci ay wax mais amuñu plateau bu ñu mën a toogee pour défendre seen bopp wala pour ñu mën a tontu mais c'est c'est c'est inhumain nga jàkkaarlook nit wala ngay gis nit parce que mun la tontu directement nga teg ci daram loo xamee ni mais rafetul moom dafa am ay mbokk ni mu valable ci premier ministre valable ci président de la république noonu la valable ci ku mu mën a doon même membre de l'opposition xam nga lu ñu war a xool fi ñu toll nii waxuma bajaxate woo wala Imam Ndao wala keneen ku mu mën doon xam lu ñu war a xool les réseaux sociaux comment faire pour réguler li ñuy woowee ay chaînes YouTube tey dama yore sama téléphone yore tuuti weccit dem wut benn xaw ma nom domaine lañ koy xaw ma lu mu mën a doon wut sama benn nangam ñu bind bon Birahim Touré point com wala Birahim Touré chaîne YouTube euh, TV nangam et tu te dis journaliste un journaliste c'est quoi tu pars sur l'information information lu ñu lay wax ci information dañ koy vérifier mën nga maa jox yow ay xibaar donte ñoo nekk liggéeyandoo sama xel ma am xel ñaar wala même su ma amul xel ñaar dinaa wut ci xibaar yi nga ma jox keneen ku ma mën a firndeel yooyu la xibaar laataa ma koy wax parce que li ñu naan dangay ngay vérifier information sa source bi ngay lan mooy source source bi lay jox information daf ci am intérêt mën na am ñaari intérêt mooy cité nañ ma wala euh, man maa joxe xibaar bi mu njëkk wala maa ngi xaar leneen loo ma jox ci wàllu euh, la ma la jox comme xibaar ndegam danga may fay wala dafa am benn ascendant bu may am ci yow parce que dama am xibaar boo xam ne ni yow amoon ko source mën na jóge ci gouvernement mën na jóge ci fu mu mën ne mën nga toog li ñuy wooyee benn waaye boo xamee ni moom moo fekkee ñëw ne la hmm. lii de maa ko fekkee mais même bu ko fekkee mu jox la xibaar bi du tee rek nga ñëw rek tëb rek noonu am na ko ko fekkee nee nangam nangam ke ko fekkee wala ki wax ne da ko fekkee mën na am na mu gis ak na mu ko xalaatee bokkul ak la réalité te loolu war nañu je pense ministre bi ñu denk wàll woowu te nga xamee ne ci numérique lay gën a yëngu yàgg ci numérique di suñu ministre de tutelle war na xoolaat nan la ñuy assainir ba c'est pas n'importe qui qui va se permettre de parler comme il veut te noo koy waxee ak la wax muy mën a indi ay ay ay jafe-jafe. Mm-hmm. gis na pour man que la justice fasse son travail maa tooñ jéggulu mais Birame Souleye Diop tooñ na fi jéggulu teewul ñu jël ko dugal ko ci kaso bi. waaw dëgg bu dee ay quelques jours après mu génn mais après xam na ni c'est pas n'importe quoi qu'on doit ci lu jëm rawatina ci benn état wala ci lu mhm. jëm ci autorité et pourtant euh, dafa jéggalu ah président Bassirou da mais euh, justice bii fi ne ni gu ñu de mhm. procureur bu fi nekkoon mhm. yaa gisu gu ma ñu ne ni changé nañ procureur nangam ak nangam ñoo fi nekk ba tey parce que état bu ñëw tamit da nga fiy bàyyi juge yi magistrat bi yow ka def magistrat wala la def magistrat ba nga mën a ànd ak say moroomu magistrat peut-être président bu nekkee ci euh, au niveau de du conseil supérieur de la magistrature mën na def lu ñu woowee jeu de chaise musicale diw moo nekkoon président lii waaye nañ def nangam changer fii mais tu restes magistrat procureur bi moom moo jël yaa am na journal bi wax na ni am na kenn ku plainte mais wax naa leen démb. Mhm. Ousmane Sonko talul di plainte kenn talu ko. je suis pas dans le secret du palais. mais xam naa ni Bassirou Diomaye fay talul di topp ay bajaxate di leen plainte talu ko. est-ce que du Birahim la manière bi ñuy opposé woo peut lañu la a xool parce que bu ñu xoolee ak l'ancien régime également noonu la demooy woon ak ñoom ñi nga xam tey ji ñoo accéder au pouvoir est-ce jotul ñu xooli bu ñu nekkee ci opposition peut-être ces propos yi nga xam ñu ngi koy tenir opposition wu mm-hmm. pouvoir wu may yoon mm-hmm. booy waxal nit ki waxal li dëgg te wax tamit dafay rafet te maandu maa man ñun dañoo jàngaloon dem maandu mu ngi sax ci alxuraan waaye yow nga ne da ngay jàngale di ilimaan ñu am chaîne wala nga am émission boo xamee ni lan nga ciy waxtaane diine ah diine moo na ne yàlla njëkk a maanu maandu woo ci nit ki yow fekkee woo dégg nga ci am wala xalaat nga ci am nga ñëw jël sa sa temps wax ne lii moo def lii moo def lii waxumuñu lii waaye nangam moo ko def wax dëgg fa ne yàlla loo ci goobee gar ko buñ la wooyee ne la demal wuyu ji kaso wala wuy ji procureur demal nga wuy ji boo wala leeree ni da nga tooñ bu subaa doo too ko waxati bu ñu war a na yoon def liggéeyam pour man le plus important aujourd'hui ce sont les urgences yi fi nekk pour man na yoon def liggéeyam nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam euh, du am benn parti pris du am benn euh, diw moom a yebal ñoom ñooy def seen liggéey parce que ba ñuy dem di leen jëli kenn yebalu leen procureur bi muy woolu ne ne ni ñu dem jëli diw ak diw kenn yabalu ko moom moo autosaisiru et ce sera valable pour tout autre personne boo xamee ni da ngay wax wax boo xamee ni yow tegoo ko ci firnde tegoo ko ci lu leer ba pare di yàqal deru nit yow kuñ ko waxoon sa bàyyi da maanaam yow dindil turu nit ki moo def nangam moo def nangam moo def nangam wax yu ñaaw yoo xam ne je vais pas revenir sur ça parce que j'ai suivi les euh, propos de l'un comme de l'autre mais j'étais sidéré parce que dafa am wax yoo xam ne rafetul mais jëlal yow turu kook nga ne ni moo def nangam ak nangam dindil tur boobu nga jël sa turu papa def ko ci wala nga jël sa turu mbokk def ko ci wala yow sa bopp nga jël sa tur nga teg ko ci. Mm. nga seet ndegam dina neex wala du la neex pour moi c'était une parenthèse man sax parenthèse laa ko mën a waxee on peut ne pas s'épancher sur ça parce qu'il y a beaucoup plus important aujourd'hui qui concerne l'État, qui concerne les Sénégalais et qui intéresse et qui doivent intéresser beaucoup plus les Sénégalais. Malheureusement, nous, on joue un rôle boo xamee ni c'est valable dans la presse xool ko tey on nous parle de euh, diw ak diw def nañ nangam pour ne pas les citer Badiakhate ak Imam ñoo wax nangam lii mën na leen ci fekk nangam ak nangam mën na leen ci fekk mais après on se focalise sur ça. tout le monde se focalise sur ça sur les plateaux comme fii on ne parle que alors qu'il important man pour man c'est ça. beneen point bi direct news la ñuy jàll ak xaalis bi ñu jagleeloon fonds force